jërë ngeen jëf mbokki wasaare lamb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi fii ci Malika seet si ki nga xamante ni mooy général Malika euh, bu ko laaj naka lay defee ak koor gi ak koor naka la ko na dundee daal ba noppi doog a dugg ci waxtaan wi général Malika nuyu naa la. waaw Ousseyn maa ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yeneen bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu suma sëriñ si Ablaye di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak waa Boune waa Kër Massar waa Alba Niakh waa Montagne waa Mbëbësan ah. di nuyu képp ku may bëggee di nuyu suma waa koñ di nuyu waa def dara bi ah waaw ñu ngi nii fii ma tudd def dara waaw. tey nga ñëw fii bëgg a bëgg fee waxtaanee mais mbër naka lay dundee ak koor. koor gi ni ngi koy dundee mooy ni nga ñu fekkee nii rek woor xam nga nekk ci kawam segg kafe toog ak Baay Faal ak góor yàlla yi waxtaan xam nga ndax fii boo fi ñëwee gars yi ñëpp a fiy daje fii siège la boo xamante ne góor yàlla yëpp a fiy daje mënoo fee xàmmee mbër ak kudul mbër. mënoo fay xàmme intellectuel bi ak ku dul intellectuel ndax ñëpp fiy daje professeur yeeg xam nga rappeur yeeg gars yi mais fii jàmm fi am quoi mbégte la gars yi di dund. Mhm. mais naka ngeen dundee dégg naa mbëri moom lekk duñ ko bokk ak kenn ko jot ñu ne du ngeen lekk moo a mbëri ci bay dégg naa 5 heures la ñuy yeew. waaw man da dama dul sax nelaw bu ma xasee ba jóge entraînement nii. damay lekk ba ba ñuy salaatu ma soog a mën a tëdd moom ndax. xam naa ne boo jógee ban heure nga man su ma jógee entraînement ay une heure su ma ñëwee damay toog. reer nekk ci bopp def samay naafi la toogaat di rey temps bi di lekkaale di waxtaan di lekkaale di waxtaan ba ba fajar wóor ma ni salaatu jot na ma soog a arrêté waaw. mais mais mais lan nga gën a bëgg. lan nga gën a bëgg ci lekk. lekk man est xam naa lu ma gën a bëgg en tout cas daal bañu dara. waaw man loolay suma problème quoi. bañu ma mais lan ngay gën a bëgg di ko utiliser parce que maa ngi dégg boo jógee entraînement da ngay lekk ba xëdd jot nga xëdd. su am lu may bëggaleel sama man daal nay lekk rek xam naa ne moom lu ma lekk ma jël waaw su ma demee daal ba war a tëdd courant bi moom xam naa ay caag rek coow lay doon wala ay meew affaire yooyu noonu ko waaw. ok caag ak soow mais avant tout foofu sax la ñu woon njëkkee baalo àq ñi nga xam te ñoo lay seetaan ak ñi nga xam te dañuy déplacé mu njabootu làmb ma bàyyi la nga baalo àq ba noppi doogu xuus si waxtaan wi. waaw di leen nuyu rek di nuyu suñu soppe ak suñu am yi nekk si diaspora bi. di nuyu képp kuy bëggee général di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu àq ci koor gi te leen te di baal àq ñëpp di nuyu nag di bëral nuyoo suñu mbokk mbër yi ndax nit ku ci nekk milieu bi nga nekk moom nga am képp kuy mbër di tax ngemb di dund làmb maa ngi général bu Malika maa ngi lay tuub di la jégalu di la baalu àq ci koor gi di wax baal naa ñëpp àq dama ñëpp baal quoi. Hmm, waaw ah bi ma fi mujjee ñëw dama ñëw premier tournoi bi njëkk am. nekk nga ki nga xam te ne moo ko jël mais tournant yi dañoo gis boobaak léegi yaa ngi ciy bay sa waar bu am solo loolu loolu lan la loo waajoon la wala naka la demee ba léegi gaaral danga nga marqué sa empreinte ci ci ci lutte simple bi. waaw mais loolu dara nekk xale rek nekk ci benn mbir bëgg ko gëm ko fonk ko moo tax xam nga ñu nekk ci quoi vraiment jàpp na ni lépp lu ñu def ci làmb rek dafa war lu ñu defagul ak dafa jotagul ndax saa bu ñu xëyee nga gàddu sa caméra di émission. wala di nekk sa job li nga war a job di ko def ñun it saa bu ñu xëyee noonu la ñuy def di dem entraînement di xool li ñuy avancé loo ci sunu milieu di xool li ñuy yokkut moo tax résultat bi ñu ci def rek jàpp nañ ni mooy lu war quoi. Mhm. mais naka ngeen di entraîner ak koor gi. koor gi suñu ñëwee comme tey par exemple bu ñu ndogoo ba pare dañuy ndogu ay presque vingt heures vingt une heures ñu woodante gars yi bu ñu dojaloo ay vingt une ñu dem Dindia bu ñu demee Dindia dóor ba ay vingt deux heures vingt trois heures ñibbi si ñëw. dem jubal dem saal bu ñu demee saal nag dóor ba benn heure bi suñ paree saal soog a dem ñibbi en tout cas daal dañuy assurer deux séances yi quoi mais lépp ci guddi gi lay doon. man ko doon defee avant koor gi daal deux séances yi koor bi foofu ngeen ko teg. foofu lañ ko teg waaw ndax boo xoolee temps boobu nga mën a am pour mën a régler ci sa say deux séances moo guddi gi la ñuy profité jëm cee def ndax benn séance moom ñun dañ ko xeeb quoi. Mhm. li ngay waaj jub combat la wala. waaw ñun budul dara suñu suñu suñu suñu live ñun lépp. maanaam entraînement lañ ko def ndax milieu bi ñu nekk gëm nañ ni ku parewul li nga ci bëgg pour nga am ko du yomb quoi moo tax muy combat ak ñàkk combat saa bu ñu xëyee ñun li ñu li ñu war dañ koy def te jàpp na ne entraînement mooy li ñu war quoi moo tax saa su ne dañ ciy nekk même bu dul sax ñu am combat chaque période koor bu ñu demaan entraînement géej wala dindee bu ñu ñëwaatee dañuy demaat salle loolu moom dañ koy assuré. ñu gis ne fan yi seen combat bi ñoo ngi koy publicité. combat am na date. waaw am na date suñ combat bi taxaw na le 13 juin la. waaw. ndax nga koy waajalee ak Fils bala ndax depuis daaw la woon boobaa ak léegi ah moo ngi lay gis sànq sa maa ngi bëgg a wax lan la mooy yóbbante su ma ñëwee ma la ko waaye jotuma koo jot lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy waaj combat bi ak naka nga koy waajee ndax yàgg na. waaw man nice maa ngi koy waaj comme ni ma ko daan waajee nii ñëw ànd ak samay xarit ak su sumay am di jaam ak waa Malika waa Yëmbal benn baraak waa Buun waa Kër Masaar waa Montagne waa Mbëbës ndax ah, ñun saa ne jàpp nañ ni saa bu ñu xëyee dañuy waaj ndax du Fils de Balla rek mooy suñu adversaire boo xamante ne war nañ koo waajal pour benn yoon non non ñun dañuy waajal pour suñu carrière ak suñu avenir moo tax làmb ji bu doon tey tey tey ci weeru koor gi tey pare nañ pour bëre ko. Mm. mais mais mais sa de Balla yàgg moom seen combat dina neex. waaw loolu loolu amateur yi gis promoteur yi gis ko ba tax yàlla suñu borom dogal làmb jooju am loolu kenn waxatu ko làmb jooju day neex. man de bokk na ci combat yi nga xamante ni man moom laa gën a bëgg ci saison bi. doo ko rëccu ko bëggee noonu jël ko def ko muy sa combat jàppal ni lépp luy luy lu ñuy xaar lu neex ci làmb jooju noonu nañ ko xaar te xam ne da ciy am bu sooba yàlla. di diggante Malick Géejawaay. waaw Malick ak Géejawaay mais jamono ji mafia bi dafa yaatu quoi malika la yëmbal benn baraat buun Kër Massar ak montagne mbëbës ak waa cité Pélitance démb démb lañ fa jugee mais fi mu toll nii commencé nañoo génne seen seen base ak seen pono di taq di waajal làmb ji waaw ñu ngi koy waxtaanee ñoom. mais ñu gis saison bi dafa gàtt mais boobu ak léegi ñoo gis combat yu ba ba ñoo ngi fi taxaw ndax boo xoolee kii di Balla Gaye Bombardier Balla Gaye Boy Niang naka nga gisee fan yi li nga xamante ni xew na mbër yi nga xam ne dañuy tegle ñaari avance naka nga ko gisee ci diggante Balla jël na Bombardier ñu naan dina ci génn du ci génn mu tef tax ci Boy Niang waaw mais loolu mbégte la lii la làmb doon xaar de ndax man nee naa la kalaaf gëj naa am ci làmb na ci làmb mbër waroon nay programme chaque saison mu bëre quatre combats wala trois wala deux mais suñu génération presque at yu mujj yi mbër mujj nekk bu bëree ba bëri ñaari combat ngay bëre xaaj bi sax ñëpp benn combat la ñuy bëree te pour man bu fekkee làmb sa yiite la làmb di sa avenir nga gëm ko di entraîné chaque jour matin soir par benn làmb moom loolu dafa tuuti ci mbër mais ñun nag moom man nee naa ñu ngi naan ay trois avance mais ñun moom yàgg nañoo jël lu dul trois avance ndax jour ñu ngi ci compétir presque weekend bu jot bu làmb amee dañuy dem bëre ji kon ñun loolu du pression ci ñun di wax loolu luy yokk làmb la luy jëmale làmb ci kanam ni ñu koy defee ci mbëri mag yi nañ wàcc ci mbëri ndaw yi tamit jëm leen a poussé jëm a xool ñoom it nu ñu leen joxe ay ñaari avance ak ñetti avance quoi. Mhm. naka nga gisee Balla Gaye Boy Niang. làmb ju neex pour man balaa Balla Gaye Bombardier sax booy Niang Balla Gaye moo waroon njëkk a taxaw pour man moo waroon njëkk a taxaw mais nag xam nga. xëy na lu ci nekk rek bis mu ci nekk bés day xaar xëy na yàlla suñu borom day soog a sabab pour mu dog pour mu taxaw day soog a day dañoo day làmb ji day soog a taxaw mais nañ xaar làmb ju neex ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang. mais Balla Gaye Boy Niang wala bëre ak Tapha Tine fa dal ci Balla Gaye est-ce que du nekk pression bu rëy ci moom ak ni mu yàggee bëgg ba Balla Gaye ba yàgg koo topp ba jamono jii nii. mais mënul doon pression ci moom ndax xale la te avenir mu ngi ci kanamam tey jii nii dafa war a mën a prouver comprendre nga tey jii moom Boy Niang waroon na mën a jël cinq avance sax bëre ndoogu ci benn saison. ndax mu ngi liggéey loolu am na staff boo xamante ne mën nañ koo waajalee noonu tamit pour man waaw. Euh, bu ñu jógee ci loolu fan yi gis nañu drapeau chef de l'état bi moo moo moo ngi waaj a ñëw te daan nañ la cee gis est yaa ngi waaj pour dem ci. waaw actuellement ku ne xam ne dama am combat arène te moo nekk sama kanam ndax lamb ji ma am di ko waajal nii làmb capital la comprendre nga pour la moment daal maa ngi waajal suma lamb daal waaw. daal su ma déggee daal euh, drapeau chef de l'état moom bàyyeeguloo ci xel. ah waaw instant bi li ma gën a bàyyi xel daal mooy sama combat bi nekk suma kanam waaw moom laa gën a concentré wu pour la moment nii. ok bu ma jógee ci lool damay ñëw ci combat Modou ak Ama Balde keroog gis nañu ku ne kenn ku ne xamoon na sa diggante ak Ama Balde keroog seen signature ba coow la bari na àggul naka nga gisee lool ci waa Parcelles la wala ci waa Pikine la wala organisation bi moo des. waaw Modou gis nañ fi jàkkaarloo yu mujj yu mu def mais boo xoolee Ama Balde moom la yàlla na too coow. moom moo doon mbër moo xamante ne moom ak lu mun a xew bu ñëwee bu ñëwee làmbam day indi biir wi daal xëy na moom moo moom moo jug moo tax mu demee noonu ndax Pikine gëj naa am loolu de ni waa Pikine génnee non non ni waa Pikine génnee man loolu gëj naa ko gis Pikine kon nag na gars yi xam ne Ama doomu Pikine la quoi. Mhm. mais combat boobu euh, commencement mën naa ne signature mu demee noonu lan la waa Pikine war mën a waaje bés bu rëy bu bu bu mel noonu Ama Baldé war a dëgmal waaw Ama ah, moom yàgg naa waaj bés bu mag ndax danaan danaan waaj jóge Pikine di dem Demba Diop. mais est-ce bés yooyu ak bésu Modou Lo benn la. waaw mais Ama bés waratu koo dépassé. Ama am na façon pression làmb bu ne. Tafatine ba mu koy ba muy bëreeg moom amul lu gars yi daawul wax Tafatine moog Malick ñaan noonu kon tey jii nii jàpp naa ne xam nga moom moom mu ngi ci yoonam di di béy waaram tey jii nag dafa toll ci examen comprendre que examen bi muy def mooy tey jii nii dafa toll ci war a. ittee li nga xam ne loolu la àdduna yëpp soxla te saa boo amee sens pour bëre ko rek pour man sa baxan nga ci war a teg pour jot ci loolu ndax mbër mu dem ba jot ci loolu rek amatoo looy prouvé te moment bi ama loolu lay bëre mu doon titre boo xamante ne mbër moo xar xol bi titre roi des arènes nga ciy fekk quoi di wax doon na làmb joo xam ne moom du yomb. du yomb waaw. est-ce xeex bi mën na cee am wala bëre lañ ci gën a mën a xaar. waaw xeex bi mënu cee ñàkk. waaw dinañ xeex dañuy bëre. waaw dina ci am de waaw. mais su ma ñëwee su ma ñëwee sa diggante yow ak Fils de la parce que fi mu toll nii euh, daanaka daanaka combat boobu moo tee Balla Fils de Balla nalaw man moom xam naa ne bu ma fa jógee ci moom laajee moo ko tee nelaw uh-huh. naka nga ko na naka nga ko na waajee naka. pare naa déggoo li ma la wax maa ngi waaj comme ni ma naan waaja man chaque jour jàpp naa ne tey damaa war a. gis nga xeeb bés bi te bés la de. no tuutal ko bokk. non même pas même pas man du ma xeeb bés. kon tey boo déggee ne ma si chef de bi daan nga ci participer est-ce que ci participer ma ne la maa ngi waajal suma combat ndax loolooy li nekk sama kanam moment bi nii boo déggee ma wax la loolu maanaam man mënu ma am pression ci làmb ndax chaque jour li ñuy fi ñuy xaar mbër man dama faa nekk toog fa bu dee entraînement chaque jour maa ngi ci du xaar ku ma ko wax bu dee waajal ci suma bopp chaque jour maa ngi ci suma bopp ànd ak sumay mbokk ak sumay staff amul lu may ragal wala di ko bàyyi xel wala lu may teg pression maa ngi waaj waaw làmb ji man waxuma la man sax mais waa Kër Massar ñoo ma bëgg làmb ji waa benn baraag ñoo ma gën a bëgg làmb ji ma gën a bëgg làmb ji waa a ñëw kon làmb ji boo jàppee ni dama ko xeeb wala dama ko teg foo xamante ne mooy loolu noonu juum nga de làmb ji bokk na ci làmb yi ma gën a fonk waaw lan ngay wax Fils de Balla. Fils de Balla di ko ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm xam nga di ko ñaanal wér di ñaanal sama bopp wér di ko baalu àq ci koor gi te di ko baal àq xam nga di ñaan yàlla su bis baa mu ñëw ci jàmm bëre ci jàmm daanu ci jàmm ñibbi ci jàmm. loolu yomb na de. waaw loolu laay ñaan li ma bëgg ak li ma gëm loolu laay ñaan waaw da ngaa jàpp ne fi mu toll nii pare nga lépp daa war a ñëw rek nooy. non lu nooy amul ci làmb ji kuy lu nooy ci làmb ji nga dem tëddi nelaw wala nga dem xooli leneen yaa ngi may dégg lu nooy amu fi man liggéeyuma pour am lu nooy bu doon lu nooy damay tëdd di nelaw heure bu ma neex yeewu xam nga dem def lu ma mais xalaatuma loolu dama sacrifié sama life ci lu bëri ngir bëgg def dara ci làmb kon xam naa ne lu nooy amu fa wala lu yomb voilà. Fils dégg nga ne général Malika ne lu nooy wala lu yomb. amul ci làmb ji yow tamit bu yeboo nga waaj maa ngi ñëw nag maa ngi ñëw ñu si waxtaane ko mais ku ne xam ne ne xale boo ci jaayee koor ñëw xale yi dañ leen daan gis ñu daan dàq koor jékki-jékki nga woor ba yenn heure yi koor gi dog est que loolu mës na laa daal mës ngaa woor bi nga nekkee booy wóor jékki-jékki làqatu naan ndox wala jékki-jékki <laughs> jékki lekk yooyu mës na la arrivé. waaw loolu moom kuy jeune di di di balaise munoo cee ñaax bañ a jaar quoi. ban nga ciy fàttaliku boo xamante ni nii woo nga bay ba ci yàgg nga làqatu naan wala nga làqatu lekk ba suur ñëw toog jàpp sa njàmbur jàpp sama njàmbur kay ak fomp sama tuñ yi ba mu waw <laughs> bi ma ci mën a fàttaliku daal maa ngi sama gars yi dañoo wooroon naan dañuy dàq koor xam nga esprit xale dafa garaaw ñun ñu ngi woor te koor day metti ba pare ñu naan dàq koor dàq koor dañ daan ñëw jóge fii dox ba syndicat comprendre nga ut sañuy xaal ay affaire yooyu noonu ñu ne buñ ñëwee mooy loolu mais daal dañoo ñëw laataa ñoo egsi tollu benn baraak ma commencé mel kuy miir yoon bi toog naa si presque quatre fois ruq bu sedd ba romb toog ma ñëw xam ne lii demul kër yaakaar ni tey moom du ma yendu bàyyi beeg si gaale dugg ci biir néeg bi xam ne kenn nekk fa naan ndox ba mandi génn fomp sama gémmiñ ñëw rey sama yaram bi <laughs> bàyyi xaw a deedeelu mais mu doon loo xam ni xam nga boo ci weesoo ngay xam ne lii lu mënul woon ñàkk la quoi ndax dàq koor waaw saa boo ko dee def rek jàppal ne à tout moment mën ngaa yàq sa koor ndax dàq koor moom lu ne dajee xew lu ne xeej mën ngaa dàq koor dem gis ay waaw ma loolu noonu moo tax loolu jaar nañ ci quoi waaw. moo tax gis nga ñu ne dañuy ñëw seet si mbëri ci koor gi waxtaan ak ñoom ndax fi mu toll nii mën naa ne làmb yi dafa xaw a rek ndax benn un mois la ñu jaamu ci yàlla fas yéenee aj làmb ji ba un mois bi jàll ñu dellu si boo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax. kàddu yu mujj lu dul di santaat yàlla rek ndax ñàkkul ni am na ñu fekkee woon kooru daaw te amaana ren fekkewuñu ko te kon buñ suñ borom natoo boole ñu fekkee woon kooru daaw ñëw fekkee waat ko ren dañ koy sante yàlla di ñaan yàlla nañ suñ borom di gën a gën a kattanal gën ñoo defal wér ñu koy yàgg di fekkee ak mboolem jullit di wax ne balaa may samay dernière kàddu dama fay fekk ñoo xam ne su may ñii ñii su may nit lañ mënuñu see bañ a sànni kàddu te ñoom it bëgg naa nga jox leen ñu sànni ci kàddu kii rappeur la ci koñ bi boo xamante ne day waaw day teewal Malika te fu ne lay dem di teewal Malika ñoom it bëgg naa nga jox leen ñu sànni ci ak sama sikarkat yi nekk fii ndax loolu mën a ñàkk la quoi waaw ma soog a indi sama waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. lan nga ñuy wax ci général Malick. waaw avant tout maa ngi maa ngi nuyu ñëpp ah, di leen ziar bu baax di rafetlu tamit déplacement bi di leen wax ne da ngeen a déplacé wu pour ku ko jaar quoi parce que dafa nekk benn gars boo mi ngi ci koñ bi li ma ci gën a marqué mooy dafa yéene ñëpp jàmm parce que mën naa mën naa def benn témoignage bu ndaw boo xam te ne man artiste laa quoi damay rab mais su ma xew xewlee dara day mel ni moo ko moom. lépp la ciy def amul amul dara lu mu ciy bàyyi lépp la ciy def loolu c'est-à-dire nit bu yaatuwul doo ko mën quoi te du nekk loo xam ne ay tricherie la war mu ciy xaar retour noo da koy def pour ndeysaan Malika gën a jëm kanam pour ñëpp ñi muy dundal ku nekk am benn am benn part am benn you know intérêt ci li nga xam te ne yow yaa ngi koy yëngu yaa ngi ciy yëngu quoi moom loolu tax muy sonn si ñëpp te dafa nekk benn gaaw te ñëpp dañ ko bëgg macha allah li tax ñu bëgg ko mooy mooy yaram ak tegginam amul yaa ko mag amul moo mag bu fekkee nit nga comme moom rek jox na la respect quoi waaw di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax waxuñu combat bii di ñëw sax ay fils de Balla ak yooyu noonu mais roi des arènes bi bañ a génn ci loxoom d'ici deux ans yi di ñëw incha allah te gëm nañ ni da koy def parce que saa ko gisee bu takkul ngeen mi ngi takk suuf donc mi ngi liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di wax waa Malika na gars yi gën a ñëw banlieue bi yëpp yëpp yëpp nañ ko jàppale bu baax a baax xam ne xam nga champion bu mag la et puis gëm na muy def quoi wasalaam. Euh, tey ñu ñëwoon seet si ki nga xamante ne mooy général Malika lan nga ñu mën a wax ci général. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di ziare ñëpp ah waa wasaare làmb ah waaw G moom daanaka wax ci moom dina yomb wala du yomb ndax bon ba ma fi soog a toxu si daanaka ay 2010 la ma bokk moom kër yaayam présenté woon ma ko quoi mu nekk tu tànk bu am yar booba léegi nag ba lépp rafet soon diggante ci dëkkandoo ak ci dundin ak ci làmb gu muy dund daal mu def ma grand am nag bon. xëy na nag cër la goo xamante ne nii moom ci démb la ko jàpp ba tey moo tax ci lu muy def ak lu muy dugg yëpp daf ma ci laaj idée laaj xalaat xam ma mu doon tamit koo xam ne ku neex a la daal waaye ndax am na yar am na teggin mais am na taalibe itam ba pare mën a jaxasook ñëpp ci dëkkandoo yi ak ci lépp ci muy dal daanaka loolu daal lañ mën a xam ci yaatal loo xam ne mën nañ ko leeral boo boo boole kook li nga xam ne moom la ñuy dund ak moom daal waaw mu doon ko yaatu. moom it lu mun a ñaax ndax bëri na fi loo xamante ne ñoo ko doon dundandoo ndax tey suñ demaan wéet wala ñu am problème sax ci moom la ñuy ñëw mu doon mbokk taalibe boo xamante ne doon jëwrin boo xamante ne nit ku baax la man dem naa ba am na ci yoonu Serigne tuubaa lu ma ci jot a xam jëm ji mën naa ne moom ma ko xamal ndax gaaleem lañ daan woo teg caayinam ñu koy toog di ko waxtaane mu doon nit ku yaatu nit ku oyof suñ borom may ko nag lu ne. te boo toogeek moom bu la waxul boppam munoo koo xam ci moom mu doon koo xamante ne maanaam mën naa ne xam-xamam géej la ndax saa bu ma ñëwee toog ak moom rek damay xamaat lu bëree bëri lu ma xamul woon ci àdduna ba pare doxewu ko waxewu ko di ko ñaanal jàmm di wax nag mënul ñàkk faaw mu yëkkati fi tuuti amadoa ndax daf ñuy bégal buy sikkar suñu xol lool xale lu mën a ñàkk la waaw waaw cant la fanaan barke Sëriñ Bamba mais gannaaw bu baax la ku ñaax ki ñaan la quoi vraiment di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax waaw. ñu tàggatoo te tëj. di sandaat yàlla rek di ñaanalaat ñëpp jàmm di wax ñun Malika lañ am yëmbal benn baraak buun Kër masaar àll ba ñaax waa montagne waa Mbëbës surtout waa Kër Massar cité pénitence amuñu seen fay nii nga ñu fekkee nii lañ toll fii yëpp suñu koñ la mais amuñu fenn sens interdit ndax loolu lañ def ci ñun ndax suñu waajur bi nga xamante ne moo ñu moo moo ñu jur yar ñu noonu la daan doxeek mbokk dëkkandoo mi kon ñun bu ñu ñëwee doon tuut tànk yoroo ci koñ bi màggee ci koñ bi duñ def lu dul jox ñëpp cër jox ku ci nekk li nga moom quoi di wax ni lii lii jàmm ci lii rek la xaj quoi. vraiment koor jot nga gis góor yàlla yëpp daje toog waxtaan ku ci nekk génnee sa dërëm sa ñaar dërëm defar café partagé loolu mooy lépp quoi di ñaanalaat ñëpp jàmm sama gars yi fii def dara aw ma seen fay maa ngi leen di ñaanal sama commune toogoon fii Big Jazz xam nga ñoom ñoom dev gars yi fii aw ma seen fay ñoom bébé ñoom laay njaay suma gars yi fii xam nga sama dafa am sama booy yoo xam dañoo jóge Casamance tamit ñëw nekk ak man fii xam nga aw ma seen fay général 2 ay ñoom ango tafa lacrymogène boo yëpp ñoom jaal Amet Diop xam nga papa sama gars yi laay bëggee ñoom Pa Madar sama doom day ñoom Amet Fall Zungale képp kuy suma copain di suma lonko maa ngi lay bëggee di la siyaar ñoom Mamoussa xam nga di jégaluwaat ñëpp di baaluwaat ñëpp aax di wax ni xam nga gars yi ma seen fay ndax dañuy sonn ci man barki yenente bi di ñaanalaat ñëpp jàmm quoi di wax gars yi xam naa fi ñu toll ci man di leen wax lépp lu ñu ma yéene di ma ko ñaanal rek xam nga maa ngi koy gis daal di wax yàlla na suñu borom dolli sutura yàlla gën ñoo lafal cat jiili nag sama copain jeune marié la mais moom mooy loolu noonu quoi daraan dem ci àll bi di fa def deux mois mais léegi mënatu faa def cinq jours di ko ñaanal jàmm moom it quoi ndax góor yàlla la bàyyi la quoi yeah gis ngeen nii lañ koy defee ci wasaare làmb tey nag ñu dalaloon ki nga xamante ne nii mooy général Malika bëgg waxtaan ak moom ci làmb ak ni nga xamante ne noonu lay doon dundee ci koor gi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare jaa ngeen jëf.